Je vous félicite pour cette initiative, je vous félicite pour votre engagement, je vous félicite pour votre patriotisme qui ne s'est pas éteint, au contraire, malgré les kilomètres qui vous séparent du Sénégal. Vous êtes, euh, scotché du matin au soir pour le euh, bien-être. Je suis ravie d'être là parce que nous nous battons pour les mêmes causes. La même cause, c'est la démocratie, c'est plus de moins d'injustice pour nos peuples. Alors, euh, on se retrouve ici à Genève, sur ce lieu symbolique euh, où euh, nous devons faire entendre nos voix. C'est un honneur pour moi. Sachez-le, c'est un honneur pour moi. Quand je viens, je retrouve un vieil ami, un frère à moi. Donc le plaisir et l'honneur ne fait qu'augmenter. Je parler en wolof parce que je veux m'adresser aux Sénégalais euh, Peut-être que sur cette place, il y a des gens qui entendent ma voix. J'aimerais leur dire pourquoi Nous sommes là parce que nous sommes un peuple africain, un peuple sénégalais. Peut-être que certains s'approcheront et transmettront. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. Nous sommes des descendants de, de grands guerriers, de, de grands peuples fiers, mais nous sommes un peuple meurtri, colonisé, mais un peuple qui est exploité depuis des années par des dirigeants corrompus qui ne travaillent que pour eux-mêmes. Des dirigeants qui, pour garder le pouvoir, sont prêts à tout. Ils sont prêts à nier toutes sortes de libertés, toutes sortes de droits humains à leur, à leur, à leur, à leur population. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est que nous avons un sentiment de patriotisme, de panafricanisme qui est en train de naître, non pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Parce que nous avons vraiment besoin de nous libérer. Nous ne libérons pas parce que nous sommes racistes parce que nous n'aimons pas l'Europe, parce que nous n'aimons pas les États-Unis. Nous voulons le meilleur pour nous-mêmes. Nous avons des ressources naturelles, Nous voulons avoir des éduca de l'éducation pour nos enfants, un, développement qui va peut-être freiner cette immigration meurtrière que nos enfants et nos, frères sont en train de subir. Mais pour arriver à ça, il y a un homme qui symbolise cet espoir. Il s'appelle Ousmane Sonko. Cet homme est un cadre, un Sénégalais, qui a étudié au Sénégal, qui ne connaît que le Sénégal, qui a tout donné pour son pays, pour l'administration de son pays, mais qui a décidé à un au-delà de, de, du syndicalisme, de s'engager en politique. Mais depuis qu'il a montré qu'il avait les solutions, parce qu'il a écrit le livre Solutions, depuis qu'il a parlé du pétrole et du gaz, depuis qu'il a parlé de cette mainmise française qui doit cesser, il est persécuté. On complote contre lui, on l'accuse, on le séquestre, on le maltraite. Toutes sortes de brimades qu'il a eu à Actuellement, il est en détention, il est en prison et on veut priver du peuple sénégalais son droit de vote, du peuple sénégalais de choisir qui demain doit présider à ses destinées. Voilà pourquoi je viens rejoindre Magui Pastef, qui sont du Pastef, qui sont avec le président Ousmane Sonko, qui est notre candidat à nous, la, le candidat de la coalition que nous portons, qui hier s'est vu pour la première fois depuis, le début de, de, de sa, son aventure dans la politique, avoir gain de cause devant la justice sénégalaise. Toutes les requêtes qu'il a portées se sont vues rejetées. Il y a qu'hier, sur un soupçon, un miracle, peut-être un jeune comme lui qui avait aussi envie de marquer l'histoire de son pays en disant juste le droit, lui a donné raison en annulant cette radiation injuste qui l'empêche aujourd'hui d'avoir ses fils de parrainage. Et euh, à la suite de Julien Chor, je suis venu directement ici, dans cette place, pour dire il ne faut pas que le monde détourne le regard. Il ne faut pas que les gens pensent que ça ne concerne que les Sénégalais et que les gens acceptent ce qui est en train de se passer. Parce qu'on combat les dictatures, on combat les coups d'État, mais ce que le président Macky Sall veut faire au peuple coup d'État. C'est pire qu'une dictature, parce qu'il veut voler notre avenir. Il veut voler notre vote, ce qui fait de nous une démocratie. Donc le monde entier doit nous soutenir, soutenir le peuple sénégalais, pour que nous réussissions, pour que nous puissions garder nos fils sur nos terres, pour que nous puissions nous libérer et que nous puissions enfin pouvoir vivre comme un peuple uni au lieu de toujours tendre la main alors que toutes les ressources dont le monde a besoin pour se développer sont sous nos mais c'est toujours pillé, toujours volé par des dirigeants corrompus. Je ne pas être trop trop long parce que vous savez moi, quand je parle de patriotisme, je euh, veux juste wax tuuti ci wolof pour euh, wax ne dama ñëw fii fekk ci magi Pastef ñu organiser manifestation may jiital ci nuyoo bi suma yaay Catherine Gueye suma yaay lay wax parce que dafa jub suma xarit suma doomu ndey mais bii vrai doomu ndey la du faux bu ma jógee ci nuyu ko nuyu magi Pastef yépp félicité leen parce ñoom seen sori Sénégal terewu leen nekk ay patriote seen ñàkk dëgg dëkk Sénégal terewu leen ñu bëggal sénégalais yi loo xam ne sénégalais yi sax gisaluñ ko seen bopp. ginnaaw démb bi ñu demee Ziguinchor tey ñu ñëw fii pour sargal leen parce que ñoom dañuy jàpp ne man la ñu war a sargal wala Ousmane Sonko ñoo leen di sargal parce que ñoom dañuy jàpp ci combat bi parce que Sénégal dafa metti ba sénégalais am ñu fitu taxaw. mais ñoom ñi nekk fii seen teranga ñooy jël li ñu am di ko yónnee Sénégal di jàpp ci xeex xeex bi ñuy xeex nag euh, ñoom ñu ngi koy xeexal seen leader mais ñun ñu ngi koy xeexal suñu candidat ñu bokk ko ñun ñëpp ñu Ousmane Sonko parce que moom de dañu jàpp ne moo am solution ci lii nga xam ni mooy génnee Sénégal ci ndóol génne ñu ci ñàkk moom la jàpp ni li mu daj ci Sénégal daj ko ci ay jafe-jafe mooy kii nga xamante ne tey moo gën a mérité ñu jox ko Sénégal ndaxte wane na ci jaar-jaaram ci impôt et ci jaar-jaaram ci administration ci jaar-jaaram ci dundam yëpp wane na ni nit ku dëggu la nit ku jiital Sénégal bi mu tàmbalee wax ba léegi nag ñu bare koy complé di ko xeex di gis façon situation yu métti yu ne ñu ko koy teg ndax moom li mu bëgg mooy sénégalais jiitu ci seen souveraineté sénégalais yi jiitu ci seen ay France dina téye wala beneen dëkk dina téye ñun ñu mën a jëriñoo ci li xam ne yàlla moo ñu ko jox bañu ñu kenn raciste ñu jéppiwuñu kenn mais sama bopp moo la gënal du bañ naa la te c'est pas normal que Afrique tey géej ay ay milliers de jeunes di ci dee par immigration clandestine alors qu'on est un peuple un pays aussi riche avec des terres aussi aussi riches de mines, de toutes sortes de ressources c'est tout simplement inadmissible maintenant euh, ñuy wax sénégalais yi ne leen jàpp nañu ni am nañu benn ndam ndax président Ousmane Sonko bi mu commencé politique ba léegi mës ka am ndam ci kanamu justice heure bu yóbboo rek dañ koy rejeté démb nag xëy na am na lu am te loolu am itam dañu ko war a encouragé waaye bu mu tax ñu nelaw encouragé ko mooy génération la yaakaar mooy jóg pour marquer. son son empreinte parce que juge boobu dafa bokk génération ak ñun ñi nga xam ne ñooy taxaw di xeex bëgg moom tamit suba ay njabootam fàttali ko waaye nag sénégalais maa ngi leen di jox rendez-vous ne leen suñu destin ñun kese ñoo ko mën a xeexal suñu bopp. magu parce que dinañ jéem ñeneen dinañ jéem mais ñun yéen ñi nekk Sénégal yéen a war a takk taxaw pacifiquement ñu dem jëli les fiches de parrainage du président Ousmane Sonko. ñun ñoo war a taxaw am fulla ni kenn du sàcc suñu avenir kenn duñu imposer kan la ñuy voter ak kan la ñuy tànn dañ koy def nag loo xamante ne ci seen adduna bi yëpp dañ xam ni ku bëgg jàmm bëggal ñu suñu candidat ku bëgg nag Sénégal nga nekk fa ci jàmm kenn du toj sa ay station kenn du toj sa ay magasin na nga jàpp ne Ousmane ko tey jii mooy sa meilleur allié et ça maa ngi koy wax toutes les forces étrangères Ousmane Sonko mooy seen meilleur allié parce que jeunesse moom la ñu àndal parce que ñi am jafe-jafe moom la ñu àndal parce que yaakaar bi ci moom la nekk bu ñu jàppee ni nga nitu fitna la ba ñu xeex ko nañu xam ne fitna jooju ñuy xeex mu ngi ci seen kaw parce que ñu ngi leen la te ñun Sénégalais duñu leen seetaan ñu hypothéquer avenir de toute une nation mais de parce que toute l'Afrique qui est autour du Sénégal est avec nous dans ce combat donc maa ngi leen di jox du ay kese moom moo ko war a toppatoo du Pastef kese du Sonko président kese peuple sénégalais bi yéen ñëpp a war a jóg taxaw nag kenn taalul kenn rayul kenn yàqul dara mais dañu a am fulla ci toñ bis bu ñuy jëli fiche ñun ñëpp jóg taxaw ñu ànd jëli suñuy fiche buñ ñu ko joxee ñu dem wuti parrainage buñ ñu ko joxulee ñu taxaw jàkkaarloog ñoom nag parce que président Macky Sall respecté wul justice respecté te loolu ñun ñoo ko mën a bañal suñu bopp. maa ngi yemale wax bi foofu parce que naaj bi dafa tàng. peut-être di jox euh, parole bi. waaw Catherine mu ci ay kàddu wala yow euh, sëñ Cheikh di la di la remercier bu baax. gis naa coono bi nga def ci coordination bi di leen remercier yéen ñëpp di wax ne leen gis nga dans la vie fukk yu dëgg moo gën téeméer yoo xamante ne dañuy caaxaan waaw donc euh, c'est pas le nombre qui est important c'est la ferveur qui est essentielle donc cette ferveur qui est là elle est à saluer elle est à tenons bon la victoire elle est proche elle a l'impression que c'est loin mais c'est vraiment tout tout près mais nag affaire du du sëgg tey la gën a la euh, je m'appelle Maïmouna Bousso, je suis citoyenne sénégalaise. Je viens aujourd'hui l'invitation du mouvement Magui Pastef, qui sont les patriotes sénégalais panafricains. Et depuis ces lieux, et le siège des Nations Unies, je veux lancer un message à la communauté internationale. vous demander de prendre vos êtes très prompt à aller éteindre des feux partout dans le monde. Vous êtes très prompt à condamner les régimes dictatoriaux. Par vous laissez le régime du président Macky Sall détenir arbitrairement plus de 1300 personnes, arrêter arbitrairement un opposant politique, lui nier ses droits des citoyens. le droit de voter, le droit de participer à des élections libres et le droit de se citoyen, le droit de se déplacer, le droit de, choisir ses orientations politiques, c'est droit fondamental qui est par le national. Donc le fait que vous ne de cette violation de ces droits. Vous êtes complice des violations des droits des milliers de Sénégalais qui, quand ils se battent, ils se voient tirer se voient massacrer, se voient violenter, emprisonnés et exilés Le monde entier doit arrêter de détourner le regard. Vous devez pas laisser le Sénégal sombrer. Le Sénégal est un arbre de paix, un pays de démocratie. La démocratie fait partie des droits humains. Ne rien faire, attendre, laisser Macky Sall violer la loi, utiliser l'administration territoriale, utiliser la justice à des fins politiques et politiciennes, c'est le peuple sénégalais. C'est tout simplement être complice de ce que demain vivra ce peuple. Parce que nous nous n'acceptons pas de subir l'esclavage par nos propres pères. Nous avons été vendus comme des esclaves par, par les pirogues. Aujourd'hui, nos enfants meurent dans ces pirogues tragiques de Nous avons été colonisés. Aujourd'hui, nous subissons la puissance néocoloniale. des, des esclaves, des frères semblables, juste pour qu'ils puissent s'enrichir sur le dos du peuple sénégalais. Donc, ici les vos responsabilités. Alertez le président Macky son régime, alertez tout État. Tout État, puisse-t-il États-Unis, quel que l'État, qui soutiendrait le président Macky dans son souhait de choisir les adversaires politiques, dans son souhait d'avoir des candidats qui seront plus favorables à la France, à d'autres pays, sachez que vous serez les bons Sénégalais. Sachez que si demain le Sénégal bascule, vous serez tous champistes de ce basculement. C'est le moment maintenant d'arrêter ma pissade de l'idée, de rendre à Ousmane ce qu'on sait quoi, de rendre le peuple sénégalais et ses libertés. C'est tout ce que nous, nous sommes venus, des kilomètres, venir tous ici, dans ce lieu-là, Vous avez des agences. La nationalité, ils ne laissent pas la voie. Il ne s'agit pas d'ingérence, il ne s'agit pas de s'occuper des affaires qui les regardent pas. Il s'agit de, défendre les droits humains, d'obliger les gouvernants à respecter les droits de l'homme, les droits des Sénégalais. Euh, J'espère que nous nous reverrons ici en 2024 comme un peuple libre, comme un peuple qui choisi, comme un peuple fier et que peut-être nous pourrons reconstruire une Afrique libre, une Afrique redressée avec tous les droits et toutes les libertés.